يا من أتى بخلاص فائخ درارا قد جئت ما يعجب السودان والغرارا وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا إخلاص يا ربي وتوفيق ويسارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa salaam boo ko julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam mbir mi nag tey dañu fi ñëwoon ngir yëgal leen xew-xew bu bi ci suñ kanam bi nga xam ni sunu góor gu màgga moo ko daan def alaaji Ousmane Kayre ak ay njabootam ak i bokkam yi ko daan wër yëpp ni mu ko daan defee nag mu nga daan jëlee ndigal ci Tiwaawan jële ko ci xalifa bi Cheikh Seydou Mamadou Mansour si ba mu fa nekkee léegi nag fa tabaarakallaahu comme nekkatu fi Seydou Cheikh Ahmad Tidiane si moo fi nekk mu jëlee ndigal ci rakkam Cheikh Seydou Abdou Aziz Al Amin mi nga xam ne moo toogal Seydou Cheikh Ahmad Tidiane si ca Tiwaawan bis boobu nag mooy bëgg a ñëw ñu bëgg leen ko yëgal ñu am ci ndigal ci Cheikh Seydou Abdoul Aziz Al Amin moom it ñu jëlee ndigal Euh, Seydi Ahmada mu jël ndigal ci magam sëñ soo si Jamil moo ñoom ñoo ñoo joxe ndigal ci bis ànd nag nag magi koñ bi yëpp ñu ngi nii. tabaarakallaahu bés bi nag ah, liñ ci programme ñaari bés lay nekk mooy ci bésu kazu rajab bi ak buñ nee suba la kazu rajab buñ nee suba la kazu rajab dina am programme boo xam ni dañuy fàttaliku suñu ay mag. yoo xam ne ñoo nekkoon fii ci dëkk bi ñi ñuy fàttaliku di imaam euh, Cheikh bu Diallo nga xam ne kenn la woon ci mag ñi di imaam Mortala sàmb di imaam Njaga sàmb di imaam maxtar Gueye ñooñu la ñu fàttaliku ci besu dimanche boobu ji le 25 bu fàttaliku boobu paase dinañ dugg nag ci euh, benn sensibilisation boo xam ne dafay aju ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu der woo fi ay dermatologue wala dermatologie yoo xam ni ñoom ñoo ñuy ñëw wax ñu bépp loo xam ne war nañ koo xam ci ñu war a sàmm suñ der ci bésu kazu rajab bi bu ñu xëyee daañu wàcce kaamil nañ koo faral di defee daañu dof dox ay dog yoo xam ne mooy dog yi góor gi daan joxe ci bésu àllarba bu ñu añee ba pare nag war a tisbaar paase dinañ delluwaat ca jàkka ja julli julli gu am solo googu nga xam ne yonent bi moo ko joxoon baayam ba muy Abbas ne ko papa kaay ma jox la julli goo xam ne boo ko jullee benn yoon ci sa dund sa bakkaar yépp yow ma sa am yow yëg ak yow yëgul yoo xam ak xamul yépp yàlla dina la ko jéggal mu mel ne buñ paree ci julli salaatu tasbix boobu daañu dem nag ci benn cérémonie officielle boo xam ne ah, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, autorités yi locales yi ak euh, kilifa yi yépp tabarakallah daañu fi bokk bokk daje mu am benn conférence bu ñuy lëkkaleeg cérémonie officielle boobu conférence boobu oustaz Muniru Ngiraan bu Tiwaawan bu Cheikh Omar Ngiraan tabaarakallahu moo koy def. bu cérémonie bi jeexee nag daañu delluwaat ci kër yi def affaire ngiraan ngiraan. tabaarakallaahu daal di xéewlu tabaarakallaahu bu ñu xéewloo nag ñu delluwaat ci tànt ba 23 heures et demi rek ñëpp daañu génn tabaarakallaahu ñu commencé programme bi programme bi nag ni muy tëddee mooy alxaaji Moussa Niang bu kër Seex Seydou Mouhamadul Moustapha Sy Jamil ak groupam ñoo koy taxawee ànd kook mbokkam xaritam sëriñ duudu kenn mbay bu tiwaawan tabaarakallaahu ah ci teewaayu nag Seydi Ahmed si Jamil bu seex Seydi Mouhamadul Moustapha bu sëñ Babacar si bu Seydi El Hadj Malick noonu la programme bi tëddee tabaarakallaahu loolu mooy gàmmo gi ñu ngi leen di woo bés bi le 26 la mai eh, ci Pikine ñetti mbaar ci jàkkay Alaaji Ousmane Kayre fa tabaarakallaahu ñu ngi ci woo mbokki jullit ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu àq di ñaan yàlla yàlla yàlla defal nu jàmmi àddina yàlla nu yàlla defal jàmmi alaaxira di ñaan yàlla bis bii nga xam ne sunu waajuroo moo ko bàyyi woon ak nun joxe woon ci ndigal juróomi at avant laata muy génn àddina la ci joxe woon ndigal ne su ma fi jógee na ngeen ko def muy seen tarbiya buñ ko defee muy seen tarbiya bu doxee insha allahu seen lépp dana dox ba mu fi jógee ba léegi nag ñoo ngi ciy jéem di ci góorgóorlu mu boole woon ca alarbaam ji mu ne sama alarba ji na ngeen ci na ngeen na na ngeen ko na ngeen ko def muy seen tarbiya ak daara ji nga xam ne moo nekk ci kaw ak bésu kasu rajo bi mu ne su ngeen ko jëlee def ko su ngeen ko jàppee def ko muy seen tarbiya insha allahu bu doxee seen lépp dana dox boobu ba léegi nag ñoo ngi ci jàpp di ci góorlu di ci nam na bi ànd koog suñu bokk yu baax yi le góor gi daana wax euh, sañ na ma damu ba mel ne damay bàkku lu ko waraloon dama am njaboot gu ma déggal sañ na ma sukk ku ku ku ma tëraloon ku ku tegoon fii gaynde ñeme naa ñeme na maa daw song ko ndax xam naa ne bu ma ko songee danaa ko daan lu ko waraloon njaboot gu topp ci ginnaawam gu ko déggal boo xam ne gi lu mu joxoñ ñu ñu daw ñu daal cee daw jëm loolu moo waraloon mu ñeeme woon na song lu ne ah ñuy sant yàlla bu baax nag di sant njabootuk Cheikh Seydi Aji Malick si ñëpp di ci beral nag cant Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin di ko jaarale ci moom mu jotalal nu sum cant ca xalifa ba di sant njabootuk kër Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si al si njabootuk Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si gépp di ca jiital ka nga xam ne moo nekk ci kanam di alhaaji Mansour si ibnu di Jamil di ñaan yàlla lépp loo xam ne lii mooy yéeneem ci réew mi yàlla na ko ko yàlla defal ba defal ci lu kawe suñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mbir mi nag daanaka egsi na ba noppi lii nga xam ne moom la sëriñ daam wax mënatuñ cee dolli benn baat mënatuñ cee dolli benn baat xanaa di sant yàlla rek ku am ku la waxal daanaka eh, boo fi nekkee bëgg a waxit daanaka la ma rek loolu ngay waxaat te li wax doy sëkk xanaa daal noo sant yàlla di ñaan yàlla yàlla yàlla yóbbu nu ci ci jàmm lépp loo xam ne lii moo xam ne mooy jagal bis bi yàlla na ko yàlla yombalal yàlla nañ ko yàlla yombalal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla jàppandal lépp loo xam ne lii mooy tax bis bi jag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke eh, mag ñu baax ñi loolu daal moo doon kàddu yi ci gàttal xanaa di sant yàlla rek di gërëm ñëpp ñu fi teew Eh, alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim الإخلاص يا ربي والتوفيق واليسارى وسيرة بن هيسا من غير باخية عد اعتمادك في الآداب والنظارة